yaa ngi nii. ci loolu nag ay Noël. non man du ma fête ay Noël de. ah du ngeen boole Noël. ah alhamdulilah. du ma kan. day tax mu gën a sakk. du ma canadien de man sénégalais laa du ma canadien. mu gën a sakkan. yow ah, ci kanam nii ci kanam ci kanam. mais coach waa làmb ji ne daa maaraayu lay wax quoi. yu may wax. waaw moom joyeux bu may wax parce que man man man nee naa la man man man trois semaines avant làmb laay wax booy xool booy seet. parce que yow da dugal mais moment bi nga koy dugal bu làmb ji desee une semaine la mais loolu def nañ ko yaa trois semaines ci ginnaaw. foo gaa comprendre loolu. té dañuy wax téléphone nga nan ma non coach non li sañu ko wax ma mbeur li ma lay wax ni bind bu amul rek war na sport la wax lamb turu wolof la lamb moy lambatu turu wolof la mais bëree dafa am lu ñuy wax grec-romain am sambu am simple yaa ngi comprendre après ñom judo ñëw ak benn bu né da nga am tur. Hmm. moo xam ne mais ñi nga xam ne du ñu sport u mënuñoo comprendre Sénégal liñ ci changé règlement kese la du dara du leneen amul technique buñ ci yokk amul technique buñ ci wàññi wàññi sax mën naa wax ndax léegi jël spectaculaire yi da nga leen di compter ci say doigts. Mhm. mais lépp léegi soo nga def nga ne nga ne euh, Bébé Diène maanaam amul amul dara ci ci bés bi yow loolu foo <laughs> gis nga Bébé Diène naa la expliqué benn affaire Bébé bi muy waaj euh, Baba Ndiol dañ doon dégg. Mm-hmm. exemple laa lay jox dañ doon déggante ci entraînement ma gis xeetu entraînement bi muy ok xëy na li muy soog a prison affaire yooyu noonu yomb démarrage bi yomb ma commencé ko ci di ko ci di ko conseiller mais xam mbeuri dañuy dañuy téla doylu te duñ ci bàyyi xel mom yu bari yo xam nañ koy gis mais nit ku do ñew rek saafaanu ko déedéet man damay jël sama temps man bu bu mbeur bu ma mësa sa defal dara damay jël sama temps ndànk-ndànk step by step moy limay wax ci ñaar ñaar bu ndaw ñaar yoo xam ne koy eh, ñaar defal ndànk eh, mbeur bu ñu la champion do champion dara dara sport ni lay démé dafa am victoire match nul am défaite mais na fekk ni soy am défaite nga xam yow lan mo la manqué ba paré avant nga war a mën di liggéey sa xel di ci gën a màgg di gën a yaatu. Mm-hmm. mais Bébé Diène ñi ko wër ñoo xamul li manqué Bébé Diène te Bébé Diène wax nañ ma ak moom téléphone bien avant avant combat bii nii ñu koy wax sax ay abadeex boobu moom ak avant combat wu kii la nu ñu koy waxatee sax euh, Baba Ndiol suñ benn xarit moo ma linké woon ak moom ñu commencé di wax période bi mu nekkee Suisse. Bébé Diène barki yaa rasulilah kenn du wax na du mbër dama la koy waxaat mais gis nga mbër da ngay am gétt te boo dégg ñu naan la am gétt du kenn waxu ko mu génn fa mu nekk déedéet waaye gis nga entraînement sportif au niveau da ngay structuré. Hmm. mbir mi du ko parcleriser ay ay mo ay moo moo entraînement ñëw di ko wax nii nax sa bopp la yaram miis miin xeetu d'entraînement boo xam ne ni dafay nekk mode alternative booy entraînement wu alternative lañ amul dama la koy waxaat saa entraînement dafay alternative booy dañuy am combat bëgg def bëgg def entraînement wu continu mais entraînement wu continu boobu noonu baaxul ci ñoom parce que c'est cellules yi lui muy générer ñoom duñ ko attendre duñ ko xam te loolu day mais mais souvent lan mooy aram wax la loolu day souvent mbër ñëw ne dañ ko jàpp ci gàllaaj fekk ni déedéet le fekk nga tegale trois mois yi trois mois yaa ngi entraîné intense boole koog stress bi pression bi loolu noonu yëpp boole koog defatul bébé jéen bébé jéen kay rek c'est fou mais boo xoolee bébé jéen li mu bëre ak li jéen bëre typiquement pareil bàyyi ci xel mais yow la ngay woowee entraînement alternative expliquer gis nga mbeur bo amul combat dafa am lañuy wax in out in out xam nga mom moy la amo combat mom moy lundi mardi nga tepp mercredi def jeudi vendredi am samedi hmm. dimanche hmm. samedi hmm. dimanche normalement piscine rek nga wara def manam lepp lo xamne day liggéey cardio so déggé manan naan la piscine bi moy do fa nek di dem musculation de rapport déedéet da ngay dem piscine continuer di defar cardio cardio duñ koy bënd cardio sa bu xëyee day laaj ñukoy bënd cardio kenn mënu ci jël pause kenn du wax damay damay noppalu tey cardio amul parce que dafa am cardio vasculaire am cardio musculaire foo gaay bàyyi ci xel seen prolaxite yi takk yu metti yeeg bàq yu metti yeeg yooyu yëpp rek prolaxite yi moment boobu mbëri dañuy sonn déjà niveau sportif boobu lay waxee mais tey bébé jën lan la la war ci géew bi tey lan lañ gis ci géw bi est-ce que bébé jën moo ñëw damay entraîner ngir am raasu vaincre kon dafa am genre poids bu ma yor am genre masse bu ma yor wara am ben explosivité bo xamné ni tay su mbeul suma ma sa kaw te indiwuma technique sax da ngay am problème mu arrêté ma ndax la puissance be doole ji may takké ci sa kaw mais mbëri dañuy dem fi duy seen yaram yi bu ñu tuy ñëw na di di di góos loolu ñi bu ñu bëri balaa ngaa yokk balaa ngaa liwtoo bi bala beneen bay dem loxo yi diis après yéen bu ñu ñëwee wan leen ay dënd ki biceps ak triceps loolu jaaxalu tubaab loolu sénégalais la jaaxal Sénégal surtout nag waxuma sénégalais bu punkalut de sénégalais bu mees rek la jaaxal bu la ci kenn nag kii si ngandeek yëpp du avantage yu làmb dama koy waxaat du avantage yu xeexkat xeexkat yi en général seen kaw mooy ëpp ndax le contact le contact physique le contact physique le contact physique dañu mujj gi seen seen seen seen squelette day mujjee formé wu en mode V open ñi ubbeeku mais. mais yow yow Bébé ban ban état de forme indi bu adéquat bu mën a bëreeg amane. Bébé Diène il le temps étudier son adversaire benn coach am jëlul temps étudier étudier adversaire am ñaar ñetteel bi ama neex ngay bëre yow sa mbër déjà gàtt na daaju na ñëw na indi masse toog na ci ay tànkam. nga yaakaar ne dana bëree ci kaw déplacement bébé jën dañ ko gis mu bëree gàkku gàkku woyof ci woy xaw woyof ci combat boobu gën koo woyof ñu gis lu ko dal ci combat boobu yow na la bébé jën ñëwee di di léwto nga bàyyi amaneex ya, di la diriger amaneex ya, moo diriger lamb ji yëpp ya, xam nga lool bu amaneex demee gauche mu topp ko bu demee droite mu topp ko bu demee gauche mu topp ko bu demee droite mu topp ko amaneex moo tàkk amaneex moo njëkk a dóor na yokkati dëgg amaneex <laughs> kan? a def lépp wax ji wax ji yep la fa nek ci lamb yep am neexu ko def kon ñom la lañ ko digal mu ñew taxaw yo ko seetaan dañoo waxante dëgg fii mënuñoo nax nit ñi dañ bayyi berne yi ñu berne kay bebe Diène manque de conseil manque de coaching moko ko ci lamb ji gisuñu Bébé Diène boo xam ne nii moo daan bëri mbapat dañu waxante deug un combattant tombe c'est son c'est ses coachs qui sont tombés loolu wax ci bi jeen daano plus de 80% ci ci espoir bi mu amoon pour dan da koo yéem da perte dama nakoy waxat waxaat keroog dañoo live mu génn wax man ne la booy bi kenn waxuko ko noppil de de kii defetu saa waay tax na seetaan seetaan ko moo Fatma Dia du koy Fatma Dia di poser question boy bi di répondre ak boy bi limi wax yeb di répondre amu dara lu ci cohérent dara boy à la place ñuy bi ni xel xol sen chemin te Bébé Diène tey lamb ji moom moo mënoon a issé Bébé Diène Bébé Diène dem fek ñoom mi regret ñu waxante deug mm. non pourtant biñ ci simee ko bon ama neex moo ko gën a daan forme foofu ndax Bébé Diène nit ku gàtt la nit ku gàtt pour mu duy du dara dafa yomb nit ku gàtt ni pour nga duy ay muscle dafa yomb say cuisse day jege say biceps su jege say triceps su jege say si léppay jege say dënn dafay jege amul dara luy large ci yow est-ce que yaa comprendre mm-hmm. ama neex moo ko gën a pare te nii ji ama neex gën a pare A ba Z Tout ce qui est état de allah rien à dire la loi des sports a parlé loi des sports a parlé mais faut arbitre xam round d'observation les arbitres sénégalais la ñom dañuy arbitrer ay wala la comprendre mais ils sont mëno fekk mbeur bu nek combat nek ci pression wara préparer combat adversaire nek ci biir géew mbeur bi wara def étude de son adversaire parce que gisu won woon ko simeeku foofu mu gis ko mu simeeku mu xool natt ko lolu ci round d'observation le bok les arbitres augmentent la pression chez les lutteurs augmentation de pression bobu non chez les lutteurs moy waral mbeur mi tay jël décision bo xam ni waru ko wona jël dañu waxante deug ñaata mbeur ñoo fiy jël décision yoo waru ne waruñu ko woon jël lu parce que arbitre bi moo fay wax si acalay naa acal naa acal

ci mën bëre ci bëri ci prise la ko daan daanu ko ci mala ëpp doole daaw daanu ko ci mala gëna gaaw daanu ko ci mala nak xex la ma doon wax rëg-rëg la rëg-rëg ñëw confirmer tout simplement moy déclencher ko ci L bi mu yaakaar ne ci gauche bi nga jëm nga jall ci droite bi bo jall ci droite bi loxo bi nga xamne mo nekk ci ginnaaw wara jug di xex du mës a xeex boo ko percé danga koy am soko amé amee koy daan c'est très simple lolu mais la mu def nak ah Reug Reug changement de pied bi mu def nag. les stratégies. Reug Reug tollu Reug Reug ambidextre la yéen da ko seetluwul ci MMA bi xana bu sonne saa bu sonne day changer pied seetluwaat nañ ko bu baax. Hmm. Reug bu bëggee défendre am défense day changer pied. ci la mën na ñaar yëpp ci la lay lay non dafa am bu la Reug Reug bëgg a dajale day changer pied ñaari pied la. Hmm. waaye bu la bëggee dajale bi dajale bu ba nga baax jàpp téye ba mu ba mu moom seetaan ko mu gridé bàyyi ngeen te a na leen combat waaw waaw boobu c'est c'est xam nga Sénégalais la ñuy wax ñoom après te ñun am na loo xam dañ koy xam bien avant ci nit ki boobu dafa ah. kon yow yow yow si boobu mu daanee sa waay doole fee amu ci quoi eh, mbër c'est

mais Bombardier bi muy raxasu du non ñu di def ni mais day leer ne Bombardier mi il n'est pas il n'est pas flexible il est rigide manam bu plier tant que tant que da am fu muy yem bu plier loxo yi loxo lay yam à la place Bakary loxo yi ni mom fi lay yam day perte ay centimètres c'est très normal bu len fàttali nak nag Bombardier ci jëm bopam il a jamais été un lutteur bo xam il était flexible dañu waxante dëgg mhm. corpulence am l'ensemble mu bindo flexibilité nekku fa mais yow yow yow Reug dafa mel ni état am yow nice de parce que yow mosuma dégg nga nga nga kaas si état de forme ak yooyu. benn yoon laa mas a kaas si état de forme Reug Reug bi muy bëree ak Sa Thiès mais Reug Reug gis bu ci wàññiwaatoon beneen cinq nga gis Reug Reug boo xam ne kenn mënu koo arrêté. Hmm. leer naa la de plus en plus ngay yor sa état de forme da ngay am la rage de vaincre dama koy waxaat. plus en plus mm. ngay jël de masse ngay am la rage de tane fatigué gaaw a bàyyi ah yàlla dogal ma daanu day fa nga gis mbër bu jàpp ngemb ba mu yàgg ne yàlla dogal ma daanu mu bàyyi benn loxo bi ñu ko daan ko xoolal tey booy grand manique duñ ko daane. waaw euh, Kalmu Ndour waaw. wala koy indi. coach booy ñaami. Kalmu Ndour yow war ngaa indi Kalmu Ndour diggante moo gaayen boobu nga naan ko bëral te doo xeex. mais Calme simple la bëre la gën a mën. moom laa lay ana jàng jàng amul war a mburu simple simple la ñuy mburu simple ci simple bi lañ ko daane. simple ba lañ ko daan. moo tax moo tax ma ne la lu tax waruñu ko woon indi mu raaj xeex da xeex ba touché sa adversaire nu ko tëf ay tànkam jaxaso nga daw bëtt ko wéelu ko lalli ko dañu waxante dëgg quand même mbir bu ci ñëw bëri nga yaakaar ne mu ngi soog a commencé bëri c'est fou quand mais de heure de erreur sa amul coach jël du am de. Père Bakaye Mbaye lu mu wax alhamdulilah la ñuy wax ndax Père Bakaye bu ñëwee ba ci làmb ji di wax Père Bakaye di ci joué lu rëy te Père Bakaye damaa déglu vocalam li mu wax Bombardier bu doon maay moom damay bàyyi. effectivement. Ah, mais loolu dans le nekk si. le point de vue où père Bekaï mais est-ce que point de vue euh, qui là, Bombardier peut-être oui peut-être que non mais père Bécaye li mu wax man dama ko ciy joindre. Hmm. wax dëgg il peut arrêter là sérieusement il peut arrêter deux fois roi des arrêts, mon frère. que dem nga jël fi Balla Gaye après nga ñëw jël après c'est bon là c'est assez là. mais moom nee na bu demee ba sentir ni mënatul dina bàyyi te kenn du ko bàyyi. parce que xaalis baa ngi dugg xam nga sentir sentir nii tey si ñaari millions te naan maa ngi ma sentir eh. oh, xam nga yow bàyyi ma waay su waay c'est normal. kon léegi gëmoo ni war na mën a daan daan yenn booy yi bii. non du question bomb ndax mën naa daan ñeneen ñi mais bomb li ko jaraloon ci làmb moo ko jaraloon tut ci làmb. Bombo, il est en amour de structure corps tout simplement mais bomb ci walum xam-xamu bëre Bombo sonnatu ci qui hmm. bama yi mi jël sax da ko wone est-ce que comprend? ngi bu adversaire u MMA day né ne ji il n'est plus quelqu'un qui est trop trop dans le yo Bombardier 10 ans ci ginnaaw Bombardier poids bi mu daan indi dana am rasu vaincre Bombardier daawul nango daanu dóoral ba muy bëgg a mais maintenant aujourd'hui newul Bombardier moo buggul de cerveau am nangu mais yaramam bi moo tour il veut rien savoir dans ce domaine de combat là. Hmm. mais mon homme de défi la day bëgg par la grande porte. naa déggoo li ma la wax grande porte ak petit porte yëpp ci yow. mais Reug Reug le fait que mu ne moom combat royal lay bëre loolu ànd nga ci yow. Bombardier mooy yow Reug Reug daa wax li nekk li nekk ci xolam la wax. mais est ce que royal wala ah. est ce que logique la tamit. est que ndax logique la. waaw ah. pourtant daa wax leeral wax dafa wax ne combat royal lay xaar ginnaaw Modou Lo nee na xale yi lay bëreel xanaa déggoo ko. te ko waaw kon jeex manam il faut pas sénégalais yi di jouer ci mots yi nañuy déglu nit ki li wax ba ñu comprendre nit ki li wax so comprendre nit ki il faut avoir l'écoute active si tu as l'écoute mm. active c'est pas assez parce que sénégalais bi looluy problème bi des fois day dégg benn affaire dégg moko entendre et écouter c'est deux choses différentes mm. mën nga déglu écoute écoute mais l'écoute n'est pas active mon ngam écoute active mais ton cerveau ne le traite pas mon ngam écoute active ce cerveau traite quoi mais ton corps ne agit pas est-ce qu'il y a une comprendre donc on a besoin d'une écoute active qui permet le cerveau de réagir et après yow nga jóg def ko wala nga jóg wax ko différence bi Reug Reug li wax Mhm. mais mais mais nan la meuna de nga c'est un système de communication gars vous connaissez pas c'est quoi une communication c'est une façon de communiquer c'est une façon de presser le citron c'est une façon ah, il y a une façon de parler. Mhm. c'est une façon de marketing de mu ne la soo paree dem MMA lekki samay million bu fekkee ne tëggu luñ ma combat donc il y a une façon il faut juste avoir l'écoute active et permettre ton cerveau de traiter et d'y réagir tout simplement amna solo mhm. léegi euh, foo yóbbu ama neex ama neex mu États-Unis rek <coughs> jàpp njaaxam ba benn booy amati problème rek mu ñëwaat météo am na dem États-Unis kon ne ay am nekk ci liggéeyam bu bu fi benn booy ñëwee fii di bandi bandi doon ñu ne ama neex kaay taxaw sam <laughs> jël ba rek moom kese bu ci kenn